asalaamaaleykum mbokk sama gaal kilifa gi ñu lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay nuyu di la chair di la jox sa wàccuwaay. tur bi nan la. Baye Zal Bergerie Serigne Fallou Mbacké. Baye Zal Bergerie Serigne Fallou Mbacké euh, mën nañ xam Bergerie Serigne Fallou Mbacké kañ la commencé élever. waaw Bergerie Serigne Fallou Mbacké moo ngi dugg si 2012 élevage laa dem 2012 lañ si dugg waaw la si Bergerie Serigne Fallou Mbacké dugg. mais yow nan nga ci duggee da nga ñëw jënd gis laadum mu neex la nga jënd laadum wala noo ci duggee. waaw ñun dañoo juddu fekk sama papa di yar ay xar mais nekkul woon ay laadum ay xaru tulaa beer la affaire yooyu waaw léegi après c'est la affaire yi di dox di dox bañ gis laadum am sam benn grand bi ñu naan booy jóob ñu dem këram fekk fa ay laadum si lañ jëlee xar yooyu dugalante ak moom am si laadum yi quoi commencé élever waaw. mais ba nga duggee ci laadum au début ba ban instant nga ci commencé gis sa bopp diggante ba ban instant nga commencé jaay laadum boo waaw man xar dama see dëggu 2012 waaw yagul dara xare yi jur juraan noonu ma commencé gis sa mbokk commencé jaay mbote 500000 ba tay ni ñu commencé jaay mbote 1 million 500 affaire yooyu jëm kaw waaw di dem di jaay ñaari xar di ko jënd ben xar waaw. après ba nga duggé ban ban ban ban sa nga commencé ak ban mal nga nga liggéeyee ba am li nga am. waaw man mal bi ma jëkë yoré setu ma sha allah la waaw setu ma sha allah Pape Dieye la mo juggé fofu nonu dugalat benen mal biñ naan jalaal Jalal doomu Ado la ab sama grand abu kan jox ma ko noonu quoi ñuy commencé noonu ba tey nii waaw. mais yow ni nga nekkee jeune nii ba nga duggee ci élevage nga am benn grand frère bu ci accompagné wala yow yaa am sa courage boobu rek dugg. ah xam nga affaire moom ñun moom ay jeunes lañ rek. waaw ay jeunes lañ gëm suñ bopp. waaw di liggéey. waaw ba tey nii quoi waaw waaw. mais xam nga euh, instant bi euh, yow a part euh, ban maal nga commencé ak ban maal moo nekk sa gétt actuellement di liggéey. ak jeune mâle bi mooy ban. waaw jeune mâle bi mooy penc mi actuellement moo nekk nii sama mbaa liggéey waaw sama papa daam bee jox ma ko waaw muy nit ku baax waaw. jox ma mal bi ba muy am trois jours na ma jëlal dem liggéey defal ma ci xéewal nag waaw defal ma ci xéewal bu baax a baax te ba ma ko joxee tamit dama abal yaay ji na ma yóbbu ko sa kër waaw muy nàmp foofu bu amee trois mois nga indil ma sama nga ma yaay ji waaw muy ku baax tamit waaw. mais kon dafa nokki xana dafa am lu mu bokk ak Boy Talla. waaw doom Boy Talla la doom Boy Talla la yaam doom Fada Mbodj. waaw yaaji doom Fada Mbodj la. mais est-ce que lan nga ci lan nga ci nam bëgg jël ko parce que Boy Talla gis nañu mal bu baax la euh, lan nga ci nam yow. waaw Boy Talla xam nañ ni mal bu baax la lolo tax ñu dem wuti ji doomam pour dugal ko suñuy mbaar boole ka yi ñoré yore ko pour liggéey ci waaw lolo tax ñu duggal ko pour liggéey nak Boy champion la mal gënu ko. mais bergerie Sëñ Fallou Mbacké instant bi ba ñëwee ci gétt gi bi bi jeune mâle bi lañ fekk ak ay femelle tey bu ñu demee bergerie ba lan lañ fay fekk lan ci ci ban côté ngeen gën a liggéey. waaw ñun ñoo ngi liggéey si côté Saloum bi waaw di liggéey si côté Ado bi waaw saa yi liggéey daal bëri na waaw saa yi xew yëpp si élévage mën naa ne ne moo ngi suñ kër waaw moo ngi suñ kër.

sa jeune ma bi dugon concours 3e ak xare nu mu bëree woon loolu lan moo indi. wa ah, affaire mom liggéey la rek wa affaire mom liggéey la rek wa bo nek say papa mom mu yéene la wa loo xamanteni ñom mënon nañ ko jël mu ñu gagné wa perdant wa loo xamanteni wa ñom mënon nañ ka gagné ñu jox lako ñu jox lako dañ si sante yalla muy nit ku baax waaw man mom luma wax rek waaw ñun mom sax essa rek waaw ñoo ñaan quoi. waaw chaque instant moom dañuy ñaan ndax suñ papa bu baax la waaw. kon daam dañuy wax noonu sëñ Dame Lo ak si kon na ñëw dugg def def def benn quelques témoignages. sëñ Dame dañu doon waxtaan léegi ci lu jëm ci élevage ñu gis que bergerie Sëñ Fallou ne yaa leen jox euh, jeune bi te li nga doon wax ci élevage rek moom la ñuy gis tey loo loo mën a wax ci bergerie Sëñ Fallou. bon bergerie Sëriñ Fallou ay euh, xale yu am jom ñoo fa nekk muy Baye Zal ak mbay ak euh, frère am yi mu ko àndal. ñu ay xalé yo xamanteni seeni wëru wuñ ci kenn mënon na def ko ñëpp top dugg ci gaali yi. parce que mais ñu gëm seen bokk dugg ci élevage ba kenn mënu ko la wax. te tudd leen. di leen gën a encouragé di wax ne fi jaar yu lañ saal ak ay euh, rakam. ci kenn mu def def gaal bi wala ñu nekk ci mbedd taxawal. man bu ci man donte ci biir mu jël ko def ko ba mel ni mu war lu ci xew rek moom méritam parce que moom moo ko def fii deret ji am na ci solo mais toog toog ci am na ci solo parce que xar bi ni mel bàyyi sa la te je me bi muy jëlee xar trois jours baal mu jël sama xar te maa la ko <laughs> effectivement parce que li mu xamoon na ne bu ko jëlee dana ci def kon moom mérite yëpp moom